gannaaw ndax gannaaw bis bi bisub cant la. boroom dafa waxoon dafa bëgg ko ko ko santale. Serigne Touba moo digle woon kuy kokam bu dikkee na ko def bisu mbég santale ko ci boroomam ci li ko ci defal li dale ci ganaar bëggaleem def ci ay bernde loo mën loolu Serigne Saliou leer leerloon na ni sëriñ Touba dafa wax ni li dale ci ganaar ba ci gëléem lu ci waay mën na ma ko defal ci bis boobu ci cant gi. newul nañ ci rendi ganaar rendi ci gëléem ndax sëriñ bi ku bañ bi daala ak lu fis loo xam ni day jëm ci xulu ak ifraatu wax na ni rek li dalee ci ganaar ba ci gëléem ma ganaar ba ci gëléem lu ci waayu mën ci ay bernde ak cant na ma ko defal ci bis bi kon nag day cant yu bari day cant yu bari day daje ci moom cant yu bari day daje ci moom bala nu ko sant bala ko santale dan koy sant mom ba nopi santal ko diggante mom borom sant ko diggante mom yonent ko bi sallallahu alaihi wasallam sant ko diggante mom bopam sant ko diggante mom bopam sant ko sun diggante ak moom ko sun ak mom def na ci abi hurayla yal yalla yàlla ko mu ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena kudul na sant nit ñi do sant yalla xadis bi abu daawud nettali na ko an abi hurayra radiallahu anhu qaal qaala rasulullahi salallahu alayhi wa sallam laa yashkuru llaha man laa yashkuru nnaas doora nag doora nag jublu ci ndigal li doora nag jublu ci ndigal li muy santale ko santale ko borom sëriñ tubaa moo digle woon kuy kokam bu dikkee na nga ko def bisu mbég santale ko ci boromam ci li ko ci defal ci dale ci ganaar ba gëléem def ci ay bernde loo mën loolu sëriñ Saliou leer leerloon na ni sëriñ Touba dafa wax ni li dale ci ganaar ba ci gëléem lu ci waay mën na ma ko defal ci bis boobu ci cant gi neewul nañ ci rendi ganaar rendi ci gëléem ndax sëriñ bi ku bañ bi daala ak lu fis loo xam ni day jëm si xulu ak ifraatu wax na ni rek li dale ci ganaar ba ci gëléem ma ganaar ba ci gëléem lu ci waay mën ci ay bernde ak cant na ma ko defal ci bis bi bernde yooyu it fàttali na ba tey ni kenn ku ne fa nga nekk war nga ko faa tàmbalee boo dikkee Touba it wéyale ko wax na ci it ne bisu màggal gi li ci Serigne Touba digle woon dara jiituwu ci jaamu yàlla mu njàngum alxuraan ak xasaayit yi bis bi itam Serigne Saliou Mbacke leeral na ni bisub cant la te cant ci gën a màgg ci jaamu yàlla lu bokk moom la digaloon yorante